saa su ne dafay dem ci marché yi daal di lëmbërti lépp nag luy mati dañuy rek euh, daal di dem euh, ca euh, kon parc Lambaye ndaxte amoon na fa ay jafe-jafe yow nag nga bëgg a indi ay leeral ci loolu waaw amoon na ay jafe-jafe jere ba Seydou Ba dégg nañ seen kàddu bi ñu ko déggee nag daw nañ taataan li nga xam ne moo di seen i kàddu bu ñu fàtte ne marché Lambaye nag wala foofu nga xam ne moo di parc Lambaye nekk foofu ca Pikine ñoo ngi ko sos en 1983 am nañu fa mm. nekkoon ay benn benn au fur ñuy dem ci lañ xalaat ne dañoo war a jënd pour mën a li nga xam ne moo di lu bees ñun deuxième mai bi dañ koy jaay mu di caro mu di zinc mu di dañu xool li nga xam ne moom la ñu indil d'abord bu ko defee ñu ci dellu si ci fan yi conférence de presse bi dafa bari ay tuuti ay failles yu ci am surtout lu demee ni problème mu pacte bi ndax euh, ki doon laaj ba ñu doon bugg ci loolu moom digg crise xale yi la doon wax xele yi ci territoire bi moom la doon wax ñu ci demee ba ci biir nag xëy na xaw naa jaxasoo ba ñu boolee ci pacte bi yaakaar ne pacte bi la ñuy yëkkati te pacte bi moom bokk ci lu ñuy yëkkati ndax pacte bi bi ñoo ngi war a am léegi 33 salle te kenn mësunoo wax pour ñu jóg boobaa gi léegi itam liñ ci waroon a toppatoo ci lu mel ne ay kayit toppatoo nañu lépp ba ci turu Baye Mor Ndiaye ba war na mën a nekk dañ ne léegi doon na titre foncier kon bu ñuy wax territoire bi leen doon wax waaye waxuñu jëmmi pàcc. bi moom dullus di yëg ndax am na lu ko fi bàyyi ci kay ci kay la nekk. kon yooyu wax moom du wax du wax yu jëm fenn waaye nag comme xas na jibi itam war naa wax loo xam ne xam ñi woote di wax téléphone war nañoo xam ne li ñuy foog ak li ñuy wax bokku pàkk bi ñu xam na ne am na ay këy kon li waraloon wax ji xëy mooy jeunesse bi nga xamante ne bii dañ fi nekk amuñu ay place nekkoon ci biti ci trottoir bi ñuy dund pàkk bi di daan seen doole yor seen i way jur ñu jëlee leen fi ci jamono bi nga xamante ne bi dañ ne président Macky Sall day ñëw ci banlieue bi loolu lañ defoon prétexte ñu jëlee fi jeunesse bi comme ni ngeen ko gis ne wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi toog ay weer a ngi ay responsable ñoo xam ne nit ñoo nekk seen ginnaaw mënuñu liggéey amuñu fu aw nekk ci mbedd mi di taxawaalu loolu lu ñu naqari la wax dëgg yàlla comme maire bi dafa ñëwoon fii aussi pour ñu jàppale ko ci tertu bi ñu bale fii ba mu set def le tout pour que le bu ñëwee xam ne fii jeunesse bi ci ginnaawam la ñu nekk ñu yàlla boobaak léegi gisuñu benn réaction parce que daf lay mel ni ñoom dañuy utiliser woon rek pour am na ñu bëgg mais bañ fi jógee léegi yàlla jeunesse baa ngi fii mënuñoo am ñu liggéey sunu sañoon ni ñu fi nekk woon di daan seen doole ñu bàyyi woon leen fi ñu di ko di continuer liggéey waaye bi ñu fi jëlee dañu noon président de ñoom ci la ñu leen fi toxale woon te booba ak léegi gisatuñu ñu wax ci ñoom dara ñu njiiti pàkk bi dem nañu ci maire bi dem nañu ci préfet dem nañu fu nekk waaye taxagu dara ñu wax leen lu ajam te it ñi fi nekkan ñëpp daa am lu leen war ak lu ñu war loolu daa am seen doole sàcc ñu fenn ñu sabootu ñu yàq ñu dara ci réew mi te nii mu mel ni mu fi nekk na ko gënoon a jaadu ndax ay armoire fi nekk na ki lal boo fi massa jaar day da ngay gis mu rafet si lycée boo de te fi mu ne lu ne ngi fi. Pàccu Lambaye bëri na ñoo xam ne ni ñu ngi koy dégg te xamuñu ko alors que Pàccu Lambaye vraiment li nga xamante ne soutenir na ko ci économie nationale bi am na doole bu baax a baax a baax. Pàccu Lambaye mooy milieu boo xamante ni lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu lu jëm ci wàllu tabax wàllu bâtiment wàllu kër. wàllu même chance yu mag yi lool ci soxla rek am na fii ci Faku Lambaye mais nag lool loolu li mu fi am am lépp dafa mel nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitu dañuy bàyyi vraiment ak suñu bopp ba ni ñu war a doxee dëgg dëgg dëgg doxewuñu noonu. adoon la mënut yëkkati boromam te am na ci yoo xamante nii buñ koy jëm du mën a sotti mais état bi nga xamante ne moom moo war a saytu doomu aadama yi fi ñu nekk di leen fa pour leur bien-être ah vraiment war nañu ñëw ci pàkk bi ñu ñëw xam ne ñun soxla nañ ku ñu jàppale pour ñu gën a organiser wu. loolu lañ soxla maanaam jàppale dama ciy insister pour ñu gën a organiser wu parce que ñun suñu wàllu bopp. am nañu certains moyens yoo xam ne nii buñ ko mettre en œuvre avec l'appui de rek foog naa lu ñu fi bëgg bu boobaa incha allah yàlla mën nañu dimbali mu nekk.

mais lii seen problème mooy depuis 1983 lañ ko sos wax naa la ko sànq euh, fan yi dañoo toog di waxtaan bi ñuy waxtaan dégg nañ kenn ci seen i njiit ne euh, maanaam capital dafay dox. Mhm. et capital buy dox. maanaam état soxla fenn dafa war a maanaam jëlee ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk rawatina ñoom mhm. comme nañ leen a comme ni ñu koy waxee xam naa bi wax loolu nag bi muy tombee am ñu fa ñëw di saytu bërëb ba mhm. ñu yaakaar ne dañuy jaay waaye dinañ jaay ak lu ñu jaay euh, na fi ñu toll nii bu ñu euh, mhm. ñu bëgg mooy ku leen ko organiser a daan seen doole mais ku nga xamee ne njiitu réew mi mu ngi dem fa nga xam ne moo di Pikine dañ leen fa jële woon leen bu njiitu réew demee di fa delluwaat mais ba tey dellu delluwaatuñu mhm. ñoom daal li ñu bëgg mooy ñu wax leen lu leer dañoo bëgg jënd pàkk bi dañ leen fa bëgg a jëlee wala ñu ñëw defal leen li xam ne moo di ñu organiser leen ba ñu mën a liggéey comme nañ ko daan defee 83 ak tey. Mhm. mais man li ma jaaxal euh, professeur ci réew mi mooy euh, yenn saay da ngay jël benn béréb nga sanc fa. Mhm. nga toog mu agrandir nga foog ne que loolu moomeel la. ba loolu mooy indi genre jafe-jafe yu mel nii. waaw c'est vrai xam nga euh, yàgg moom taxuta moom. Mhm. Sénégal noonu la ñuy def da ngay da ngay da ngay gis ku teg benn cantine. Mhm. Euh, bërki dem dal nañu suñ koñ fële golf. Mhm. koo xam ne bu guddee day ñëw rek teg nii di jaay ay téléphone portable ak yooyu. ñuy defar tali bi ñu ñëw gaare suñu oto mu ne waru leen fee gaare ndax maa fi jaay. Ah. taal ko ci kaw tali bi ci trottoir bi fa oto yi war a fanaan. donc problème bi ñu am man li may jàpp rek mooy fin wu message bi. dañu bëgg état bi dimbale ñu ngir ñu mm-hmm. organiser wu mm-hmm. première question bi ñu war a régler mooy ku moom foofa mm-hmm. d'abord déjà man boo xoolee temps yële génne naa benn téere boo xam ne mi ngi wax ci marché yi lakk lan mooy taal marché yi ak lan moo koy indi ba bu marché tàkkee sapeur pompier bala moo dugg marché bi jeex dëgg lan mooy problème bi yoon wutiinu xaalis mhm. façon wut xaalis bi ñu wut xaalis mhm. ndax li mu wax noonu bu fekkente ne ñoom ñi ngi ci mhm. état bi dañ bëgg mu ñu organiser ñu man duma xaar état bi ñëw man maay def démarche dem def proposition ne ñun ñoo fi nekk lii ak lii gis nañ ne baaxul ci ñun mm-hmm. bëgg nañ ko ñu dimbale ñu organiser ko nii mm-hmm. je pense que bu ñu toogee ñu waxtaan état bi aussi bëgg na citoyen bu bëggee jënd am fu muy jënd mm-hmm. mais nit ñi nañ xam ne yàgg ci place ak yàgg jaay ci mbedd taxul nga moom mbedd mi te tamit mënuñu yor réew moo xam ne ku ne fu la neex nga jaay fu la neex nga taxaw nit ñi mënuñu jàdd mënuñu circuler mënuñu dem fenn il faut ñu waxante dëgg dafa place yoo xam ne place pour jaay la am yoo xam ne place pour jënd la ak place yoo xam ne place pour dem la mhm. li may li may terminer daal ci li ma xam lu gàtt mhm. mooy place dañ koy contrôler mhm. place boo xam ne matériel buy tugg kenn xamul fu mu jógee surtout que yow da ngay jaay deuxième main ki lay jaay xamoo ba xam dafa moom wala moomut barki dem am nañ fi suñu xarit bu siiw boo xam ne ma ngi ñu tëj ci kaso ba ndax dañ ko jaay ay nag ñu ne nag yi ki ko jaay da ko sàcc donc réew mi nañu dañ dul mm-hmm. contrôler mm-hmm. te comme duñ place bu mel noonu dañu war a contrôler mm-hmm. dem nañ ba yenn place yi loo fa jënd dañ naan la mën nañ laa dab nangu ko donc je pense que il faut ñu waxaat ci mais parc Lambaye moom nañ ci jóg problème la boo xam ne bis bu explosé musiba am. jërëjëf professeur Adjaratou Maté yooyu tamit jërëjëf ci li nga xamante ne indi nga ko lu am solo. Mhm. ci euh, euh, kon yeewu leen parc Lambaye lu am solo la loolu mu ngeen ko seetaanaat en replay euh, ci igfm point sn mbokk yi nag maa leen di wax ne mun ngeen a woo professeur mun ngeen a woo oustaz <laughs> oustaz Pape Anne ci 88 628 04 05 wala 88 628 22 22 en direct boo leen amee yenn laaj kon. yoo leen di laaj ci jëmee ko euh, ci wàllum diine mais euh, oustaz Pape Hann sànq rek ñu ngi doon wax fii sànq ñu nag ñoom professeur rek ñoom Mati ak euh,